salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bu baax di ziare mbokk yi fi teew yëpp ci turu mouvement Madakaw wax rek ne dañu amoon réunion d'évaluation ci journée bi nga xam ne génn nañ ko di dimanche bi ñu jàll di dixième année d'activité du mouvement Madakaw anniversaire am yàlla def ñu daje woon tey doon def évaluation ci biir semaine bi te ñu nemmeeku ci ay yëngatu yu am ci biir réew mi rawatina dëkk bi ñu nekk euh, di Touba ñu fas yéene cee yëkkati suñu kàdd en tant que mouvement ànd jàppale askan wi Madakaw rawatina image yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci Sénégal rawatina dëkk bi ñu nekk di Touba. ci biir euh, évaluation journée dixième d'année d'activité anniversaire bi ñu doon def ñuy sant bu baax membre yi mouvement Madakaw gépp di ko jaarale ci comité directeur bi di bis boo xam ne metti woon na trop ñu ngi ko doon waaj 4 mois avant. yàlla def suñu boroom defal ñu ci si totale ñu ànd ko ak autorités yi nga xamante ne si ne ñu ngi nekk ci département bi yëpp force de l'ordre it gis taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci am ci sécurité waaye rawatina presse bi nga xam ne ñu ngi ci département bi ak taxawaay bi ñu ci am taxoon tey ñu ñëwoon doon daje doon avalier bis bi ñu ngi ciy santit mbooleem autorité boo xamante ne si ne ànd nañ ko ak yow nga jàpp ci am nañ ko ci bu baax rawatina dix ans de yi bilan bi rek am na ci ñoo xam ne dañ ne woon gëmuñu ne Madakaw def na réalisation yu mel nii juste rek ñu mën ci tudd ñett yoo xam ne suñu ko tuddee doy na sëkk mooy huit fois journée d'adolescents yi nga xam ne Madakaw organisé na ko ci biir dix cent de activités yi nga xam ne mën naa ne la plus de huit cent personnes Madakaw dajale na ko ci biir dix cent de activités yi jàppale ko banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni ci loo xam ne rek jàpp nañ ko ci benn mais quarante six quarante cinq groupement des femmes yi nga xam ne dañu ànd ak mouvement Madakaw di liggéey Madakaw jàppale leen ci wàllu accompagnement financier lu mel ne PAMACAS mat na ci sëkk parce que suñu partenaire la ñu leen jàppale ci benn lesis bu ñu def di leen accompagner ñuy def solidarité ci seen biir di dimbalante di jàppalante waaye jàppale leen ci ay formation céréales ordre de cheval ngir ñu mën a yaxanal seeni métier bu baax a baax ci biir 10 ans activité it Madakaw organisé na ci. sept fois open national taekwondo ba gis ngeen sax ci 72 heures d'activité yi dañ ci organiser benn tournoi départemental boo xamante ne si ne dafay wane ne Madakaw li mu def ci esport ci département de Mbacké amul benn mouvement politique bu ko fi def rawatina mouvement développement. loolu taxawaay la boo xam ne def nañ ko ci biir 10 ans yi ànd ko nag ak autorités yi nekk ci biir dëkk bi waaye ànd ko it ak membre yi mouvement Madakaw gépp it nag ñu leen di sant bu baax te di leen gërëm di yëkkati suñu kàddu. ci li nga xam ne am na ci biir réew mi muy lu ñu ñaawlu lool en tant que mouvement ànd jàppale askan wi rawatina nag dëkk bii ñu nekk di Touba ndax Touba day dëkk boo xam ne dafa am boroom muy dëkk boo xam ne benn la ci senegal ndax mooy benn dëkk boo xam ne titre de foncier bi ci nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul la tudd amul ci senegal ci beneen dëkk muy dëkk boo xam ne bi ko boroom di sanc daf ko sance woon ak ay mbébét di dëkkub ñaan di dëkkub ziar dëkkub jaamukaayu yàlla muy dëkk boo xam ne bi mu ko sancee mbooleem kudut borom sant wi kenn ku ci nekk da ngaa judd fekk sa maam wala sa waajur sancub dëkk waaye da nga koo bàyyi fekk si ko ci biirub dëkkam mu ñag ko wax ñépp di dégg waaye mu bind bàyyi fi ba képp ku judd mën a jàng jàngalem sëriñ bi ci lim yéene woon ci biir dëkkam bi waaye lim bëggoon ci biir dëkkam bi lu waay néew néew néew ñàkk xame di boo jàngee mat labal foosee ni xam li Serigne Touba wax ci biir dëkkam jéeg yéen a jëm ci amoon kon jàpp naa ne lii ñu fi gis bërki démb lu ñu ñaaw loola lool ci turu mouvement Madakaw gépp di wax ne du mérite ci dëkk bi waaye du mérite ci mbooleem jullit foo mën a nekk ci àdduna li ñu gis ci Sénégal ñu koy metti li ci turu mouvement Madakaw état continuité la Senghor dafa ñëw jël réew mi liggéey lu am solo bàyyee ko ak Abdou Diouf mu ñëw jël réew mi liggéey am solo ab laay Wade dikk jël réew mi 2000 ba 2012 liggéey lu am solo président de la République Macky Sall ñëw jël réew mi 2012 ba 2023 bi ñu nekk di liggéey te incha allahu bi bu neexee suñ borom ak ayam day fegal kon jàpp naa ne président li mu def santu Sall ndax li Senghor liggéeyoon santut Senghor li fi Abdou Diouf liggéeyoon santul Diouf Ablaye Wade li mu fi liggéeyoon santul Wade réew mi moo ko moom ñoo da ko fee bàyyi ñu di ko bénéficié woo président Macky Sall li mu fi def ak réalisation yi li mu rëy rëy rëy santut Sall da ko fi bàyyi ñu bénéficié ko ñun sénégalais yi kon nag mënuma gëm en tant que ay nit di woote seen bopp comme patriote en tant que ay sénégalais di jël li nga xam ne ay biens publics la ñëpp ñoo ko bokk ñu man di ko sakaase di ko yàq te moom ay cible lu mel ne ay station totale lu mel ne Auchan te jàpp naa ne ni France di ñëwee di investir Sénégal même boo demee France noonu nga fay fekk ay doomi Sénégal yu fa investir même boo demee États-Unis noonu nga fay fekk ay doomi Sénégal yu fa investir foo dem partout dans le monde noonu ngay fekk ay doomi Sénégal yu investir pourquoi pas ñu jàpp ne kenn wërta investir ci biir réew mi ba ñu jàpp ne chaque jour bu ñu sakaase rek dañoo war a cibler li nga xam ne étranger yi ñoo ñëw di ko fi def barki démb maa ngi seetaan benn image ca Yoof benn ep série bu ñu fa yàq boo xamante ne si ne ke ko fa def ab espagnol la mais même bu ko fa ab espagnol investir ay sénégalais ñoo cay liggéey parce que même Auchan bu ko fi français yi defee ay sénégalais ñoo ciy liggéey mais kon nan la ay sénégalais mën a nekk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi ay sénégalais pur te dur wane ci seen bopp na ay sénégalais lañ di sakaase li nga xam ne seen moomeel lañ mais tey lu mel ne BRT bi ñaata réew Afrique ñoo ko mul ci Sénégal. président Macky Sall dem copier ko gis na lii lu jekk ci Sénégal la moo ndi ko fi tey ñu dem sakaase ko ñaata réew Afrique ñoo nekk ci Sénégal yu ñu ëpp ay ëpp ay moyens téeméeri junni yoon mais engagement bi ak détermination bi xëy na nekkul ci président yi ba tey amuñu teer président Macky Sall dem jël terre andi ko fii ci biir réew mi ñu dem di ko sakaase tey ñu def ci 1000 milliards yoo xam ne président Macky Sall moomu ko keneen moomu ko 1000 milliards yañ ca def Sénégalais ñoo ko moom 17 millions d'habitants yi ñëpp ko bokk kon jàpp naa ne ab sénégalais wër te mën a xool li nga xam ne ñëpp ko bokk ba dem sax ci police di ko sakaase dem gendarmerie di ko sakaase dem ci banque yi di sakaase te station Total yi il faut que nit ñu comprendre ne Total locaux la ci am man mën na maa jël sama station tabax ko ba mu jekk ma dem nekk partenariat ak. total total duma may carburant du ma ko lebal daf may jaay di ma jox mais nag nit ki bu la dee jox carburant am il faut que nga peinture la koom bari na ay station total yu ñu sakaase di ko yàq sénégalais yi ñoo ko moom ay français moomuñu ko kon il fokk nit ñi delloo si seen xel bu baax di wax ne réew mi réew réewum teraanga la. dañu bañ ba loolu la ñu màndargaale ñëpp doon daw bailleurs yi ñëpp di ñëw di investir ci biir réew mi ku ne gis na ne tey réalisation yi am nii tey autoroute yi yàq nañ lépp parce que booy xool loolu nag ay image la yoo xam ne mouvement Madakaw daf koy ñaawlu bu baax rawatina dëkk bii ñu nekk di Touba dëkk bi nag dëkk la boo xamante ne seen képp ku fi nekk li nga mën a delloo njukkal Serigne Touba mooy la Serigne bi woote woon nga nekk ca dëkk la boo xam ne dëkk la ci royukaay ci àdduna bépp kon lii ñu ciy gis tey muy am ñuy sakaase ay station di yàq ay ay lu kenn xamul te nag dama gis loo xam ne ci dëkk bi ñun waa mouvement Madakaw ñu ngi ci doon waxtaan léegi dañ ciy teel a alerte parce que Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul def na woon dem leen ngeen yari ndaw ñi te jàngal leen waaye dana woon ñaar ñi bu ci benn mënta ñàkk nañ leen yar ndax dana xam-xam bantu ko bi yar amut njariñ ci nit ki mais dañu gis ay gone yi ndaw yu nekk ci biir dëkk bi parce que même image yi boo ko dee seetaan ci réseaux sociaux yi ay moins de 18 ans ngay gis xale yoo xam ne dañoo toll ci njàng xale yoo xam ne dañoo toll ci jàng métier mais tey li am bërki démb suñu benn frère bokk ci cellule communication Madakaw di Xaadim Guèye kër Serigne Moustapha Abdoulaat la jóge jëm ci jumaay Touba ci sareet bi mu yëg lañ ko agressé bi ñu leen jàppee nekk te borom sareet bu complice la ci mais xoolal loolu ci dëkk bi ñu nekk di Touba te diggante kër Serigne Moustapha Abdoulaat ak diggante jumaay Touba mais est-ce loolu rafet na ci biir dëkk bi ñuy dem ba yenn quartier yi ci biir dëkk bi ñu koy màndargale ak ay quartier yoo xamante ne si ku ne xam na ne la taxoon ñu koy màndarga mooy ay wéyu ak yeneen loolu in faut ñu teel cee jóg ñu fexe ndaw ñi ñu xool naka la ñuy def ngir dem liggéey ñi mat a jàng ñu jëlee leen ci sareet yeeg oto yi ñu nekk yóbbu leen ñu dem jàng ji di wax ne la Serigne Touba woote woon ak lii ñuy gis tey ci dëkk bi duñu benn nañu yaraat suñu bopp jël suñu responsabilité ci biir dëkk bi topp ci njàngalem dëkk bi loolu daal moom la Madakaw ne woon dañoo daje tey yëkkati ci suñu kaddu. président Macky Sall dafa woote dialogue ne ñëw leen ñu waxtaane lu ñu bokk mais pourtant waxtaan boobu jàpp naa ne lu ne mën na caa juddoo kon bu ko ñëpp wuyusee te nag nit moom ki gën a noppalu ci àdduna mooy jullit bi nangu dogalub suñu borom président Macky Sall yàlla mënatu koo jox cër bi gën a kawe bii mu ko jox ci àdduna mooy mu jiite 17 millions d'habitants yi fi nekk yëpp suñ borom mënatu koo jox cër bu ko gën a kawe waaw bu nangoo wàcce boppam kay ba ne opposition bi société civile bi chef religieux yi ñëpp ñëw leen ñu waxtaane lu ñu bokk kookaa ngay wote jàmm lañ cay dolli nag ñun waa mouvement Modakaw mooy ne ko ñëpp wuy si te xam ne ku ko wuyu ji rek wuyu ko war a wuyu ji bu ko defee ñu waxtaane lañu bokk jàpp naa ne loola bokk na ci ak jafe-jafe yi nga xamante ne si am na ci biir réew mi mooy mu gën koo dalal Modakaw sant ci bu baax ndax ñun dëkkoo dëkk mouvement Modakaw dëkkoo dëkk ak bu nit mën a xalaat ci àdduna tuubaa ñu ko gënal ñun buñ sañoon Touba nit du fi dégg lu jàmm te nag dañoo def loo xam ne seen maam ju baax ji Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul loolu la defoon muy jël lépp jox ko maam Cheikh Ibrahima fal ndax maam Cheikh na ko woon dinaa la ñagal dëkk bi ba kenn du ko ruuj tey bu ñu yëkkatewaatee dëkk bi jox ko xalifa général de Mouride jox ko xalifa général de Baye fal loola mooy li war parce que lii am nag jàpp naa ne police wala gendarmerie mënu ci dara il faut que taalibey Serigne Touba yin jàpp ne Serigne kenn ru leen kudd Serigne Touba ñoo koy fajal seen bopp te kenn mënu cee jiitu maam Cheikh Ibrahima Fall loola moom mouvement Madakaw ñi ngi ciy tàllal seen loxo ñëpp ñu fekk si leen lañ leen tey fekk see te mën leen tey jàppale te noppal leen nag mooy xool li sëriñ bi bañ ci dëkk bi ñu bañ la ko te li sëriñ bi bañ buñ te kenn seen ba ñu tey fekkati